ngir liggéey Sénégal parce que bientôt Sénégal dina mel ni yeneen réew yi comme ay Chine comme yenn tudd na yenn dëkk yi ne modèle boobu la bëgg a tabax euh, Sénégal donc kon nag nañu focus bàyyi ñi nga xamante ne bi dañuy détail mm-hmm. waaw loolu moom dëgg la moom macha allah xam nga ku la yee jox la ndekki bu la diggee añ bàmba nga gëm ko te Ousmane Sonko yaakaar naa ne ba ñu jëlee réew mi ba tey xeex nooteel bi nga xam ne moo nekk ci réew mi ba toll tey fii ñu toll kon Ousmane Sonko bu nee ne Sénégal dana dàq Paris wala Sénégal dana romb du bàyyi kon askan bi yëpp mën nañ koo gëm mhm. macha allah parce que boo xoolee rek barki démboo Ndiaye xam nga Sénégal ku ci ne gis na tilim gi fi nekkoon ku ne gis na Sénégal macha allah mbedd yi nu ñu mel waaye ñu dénk la réew en tant que premier ministre sa xel dem ci lan xaaral ma bale réew mi sa xel dem ci lan nañu saxal li nga xam ne mooy ay garab génnee ville ville morte teg li nga xam ne mooy ville verte kon nga war a xam ne ne kon réew mi fi ñu la teg barki démboo ñaay ci cent ans wu Sénégal yi nga xam ne moom la ñu wane macha allah cent ans yi euh, xaw ma naa cent ans du du moins maa ngi ko yokk sax <laughs> cent jours yi cent jours yi rek nga xam ne ne tubaarkàlla macha allah def nañu réew mi doom dëkk bi ñëpp seen xol sedd ñu wàññi lépp loo xam ne ne moo fi nekkoon sax bu mm-hmm. dee donte sax loo xam ne yàqu woon na yaasin mhm. li ma la wax ne yàqu woon na ca vingt ans yàqu woon na ca quarante ans wala avant indépendance ba tey ñuy góorgóor te bañ leen mhm. joxee réew mi yàggul ñu nekk ay xale yoo xam ne seen loxo dafa set askan bi bëgg leen tubaab mhm. tubaarkàlla macha allah ñu def fi wàññi wàññi boo xam ne macha allah macha allah wàññi nañu mm-hmm. lu baree bari mais macha allah sax nit ñi xel dal na mm-hmm. ndax ku la yee jox la ndekk bu la di xëy añ nga jëm nga gëm euh, trois mois lañ fi def ñu fekkoon fii ci taux boo xam ne yéeg na mm-hmm. taux bu élevé courant bi cher ndox mi cher dépense bi cher yëpp cher kon tey bu demee ba nga xam ne Ousmane Sonko ñu jox leen réew mi simila ak saala rek wàññi bi commencé taxaw kon dama naan xel dalati na xel dalati na moom lañu wax tubaarkàlla macha allah Ousmane Sonko baax moom nga xam ne c'est un baax la nit koo xam ne macha allah dara ñoru ko mm-hmm. lu dul réew mi réew mi Ousmane Sonko dara ñoru ko lu dul Sénégal tubaarkàlla macha allah li may wax ci saa su ne mm-hmm. bu ko Sénégal ñorul woon kon mm-hmm. keroog bi ko Macky jàppee di ko bu buñ ko toppee di ko sonal ndax la ndax réewam moo tax mu jaayante tubaarkàlla macha allah ba yegg si fii kon Ousmane Sonko nekk na koo xam ne ak Bassirou Diomaye Faye suñu président bi yaakaar naa ne Sénégal ñëpp bëgg nañ ci ñoom jox leen li xam ne mooy moom mooy loxo laf cat daal macha allah mhm. li ñu jot a gis en tant que mhm. sénégalais dal na li nga xam ne mooy mooy mooy suñu xel. Mhm. te nekk na koo xam ne président wala premier ministre boo xam ne dañoo jege seen askan. ndax Ousmane Sonko yaakaar naa ne à tout moment da daan génn di wax ak nit ñi dañ daan faral di wax naan Ousmane Sonko dafa war a bàyyi sorti mënut a que askan ñoo ko bëgg mu bëgg leen. te ñoo ko def tey jii lii mu doon. kon Ousmane Sonko fu mu mënta toll ci àdduna rek dafay génn di communiquer. li nga xam ne mooy askan bi te à tout moment heure bu Sénégal yëngoo heure bu Sénégal wàccee dañ ko koy soxla ndax communication dafa nekk bàmba loo xam ne lu am solo la. dëgg na lu am solo la euh, euh, Ngone. Euh, mm-hmm. li nga xamante ne bii wax na ko mu mel ni aussi fa xeetu tontu la. Mm-hmm. comme ni nga ko waxee léegi Ousmane Sonko di tontu ay détracteur am Yacine donc. Mm-hmm. discours bi nga xamante ne bii def na ko aussi suivre nga discours bi lan ak lan la wax ci discours bi tënk. waaw Sonko génn na saafonteeg askan bi wax ak jeunesse bi delloo si waat jeunesse bi. ne jeunesse bi nañ bàyyi mbëkk mi mm-hmm. buñ dem fenn nañ toog fii liggéey mm-hmm. waaw ñoom ñu ngi ci ñu ngi dox ci yooyu mm-hmm. parce que dem dugg ci géej gi loolu du solution ñu toog Sénégal liggéeyal seen réew ñu liggéey ñoom ñëpp ñu gis ci seen bopp Jomaay ak Sonko ñu ngi ci tànk yooyu noonu waaw nee na tamit euh, yu bees yi bu leen kenn déglu bu leen kenn faale nañu fukki ci luñ nekk. yaasin wala opposant yu yàgg te xew <laughs> nguur gu ñëw mu ànd ak ñoom dooruñu fay ñu xale yi dañ leen a gëmatul sax ba pare. <laughs> Ousmane Sonko daal mm-hmm. ci gàttal nee na jeunes yi réew mi seen réew la ñoom amatuñ lu ñuy prouver amatuñ loo xamante ni soxla nañ ko ci réew mi bu budul budul jeunes yi fi nekk seeni doom ëllëg ah wala seeni rakk yii di ñëw. ñoom dinañ fekke lii ñoom ñu ngi ci tool yooyu di bay pare nañ pour Sénégal mel ni Dubaï pare nañ pour Sénégal mel ni Chine pare nañ pour Sénégal mel ni Maroc mii ñu jege muy suñu dëkkandoo pare nañ ci loolu ñëpp nañu focus xool liy jëmal réew mi kanam liy jëmal Sénégal kanam ah ak nu ñuy def ba suñu réew mi naat ak ni ñuy def ba suñu réew mi développé na na jeunes yëpp focus ci loolu mm-hmm. loolu la Sonko wax mm-hmm. te moom bu génnee wax rek dama naan ngoone gaynde gi génn na wax ndax moom du waxantu du waxantu moom lu mu toog mhm. ba segg ko ba wax ko rek ah bu ko songee da koy daan mhm. nag ndax parce que nag bi ñu yàlla boolee moom ba tey Sonko naxuñu mhm. Sonko naxuñu mu ngi ci mu ngi ci voie normale li ñu ah. def dal na xel mi dal na xelu ñëpp Sénégal gi yëpp nag parce que ñu ngi ci tànk yooyu jub jubal waa macha allah mu nekk lu am solo donc lu importance la euh, li nga xamante ne bii rek euh, def na ko ci discours moom président Ousmane Sonko mais ngoone xanaa bu ñu ci jógee. Hmm. ñi nga xamante ne bii ay détracteur am la wala ñi ko sonal euh, di ko song saa su nekk dinañ xam ne Sonko maintenant amatul jotu tontu leen hmm. est-ce que dinañu arrêté genre ku mel ni Bougane keneen ak keneen. ñenn ñi nga xamante ne bii ñu ngi lancé ay fikk de gauche à droite. donc démb dafa mel ni Sonko xamal na leen vraiment. vous n'êtes pas important du ma leen ton mm-hmm. non non xam nga lan moo tax Bamba loola Sénégal man gisatuma fi opposant mm-hmm. waaw parce que Ousmane Sonko. Mm-hmm. yaakaar naa dafa ñëw battre record bi te yaakaar naa ne Pastef yàggul 10 ans. te dama yaakaar ne nguur gi nga xam ne ñoom ñoo fi nekk dafa nekk loo xam ne nguur goo xam ne depuis 1960 ba tey yaakaar naa ne ay continuité la boo xoolee tey jii ci Abdou juuf ci Senghor ñi nga xam ne waa PS ku ne xam ne na ñoo nekkoon ci Senghor ba Abdou ku ne xam ne na Macky Sall la foofu la génne comme opposant amu fi man nanguuma parce que la moo tax ma ne opposant amu fi booy opposé day fekk yow nga wax loo xam ne réew mi nit ñi mën nañ la dégg surtout ci président Kër Dofia moo gën a manqué soxor na il ñaan na dën na cœur noir dërul fayul attewul xeex bokkul benn rang te rang bu mu dëgg mu dëgg yorul ànd ak ma yoro te kenn yoralu ko kon moom dafa war a xoolaat boppam moo tax ma ne Sénégal gis mu fi opposant Ousmane Sonko dafa ñëw samp ay ndëndam dëggal boppam xool li nga xam ne mooy jafe askan bi xool li nga xam ne moom la sénégalais yi di dund depuis 1960 ba tey indépendance amu fi kon ñoom seen biir dañuy ànd ak kii bu doxulee ñu génn rocc ànd ak keneen te Ousmane Sonko nitu diine la hmm. Ousmane Sonko nitu l'islam la Ousmane Sonko dara ñoru ko lu dul Sénégal focus la woote ak liggéey mu nekk jàmbaar joo xam ne fàq dëkk jàmbaar joo xam ne tubaarkàlla macha allah taxawee force tranquille on nous tue waaye on ne déshonore pas kon dafa nekk jàmbaar joo xam ne dafa ñëw samp dëggal boppam ñii ñu ñu woowee opposant Sénégal Sénégal opposant amu fi parce que ñoo xam ne yéen a gën a xew yi fël-fël nit ñi sénégalais ñoo leen xool ba teg leen ñaata opposant fi am bamba ñoom ñëpp faxas nañ leen doy na sëkk tey jii boo fi liimee kenn ñan ñoo fi ñëw samp seen dënd parce que Ousmane Sonko tey li mu ñëw wan Sénégalais Ousmane Sonko li mu ñëw incarné moo lay woon ne dañoo doyal ci ñu fi nekkoon nee naa la Ousmane Sonko yàllaa ko baaxal. Mhm. yàllaa ko beddi yàllaa ko def ci nax ci xolu jaami nax saxandam du ko fay sawkatulal du ko fay baj de puuta du ko fay te Ousmane Sonko amul seen jot focus la woote ak liggéey. yor réew mi ñu ne deetawaay ñu topp ko di ko xeex di ko xeex ba mu daanu Cap Manuel mu samp ki nga xam ne mooy jomaay ñu naan nit ki tëdd kaso nan lañ koy kiyee boobu fekk na tubaarkalla macha allah jàng nañ droit nag te xam te xam seen te xam macha allah li li li fi Diomaye ku ne xam na ne tubaarkàlla macha allah ni ñu ko jàppee teguñu ko fenn. Mhm. Ousmane Sonko nañ ko jàppee teguñu ko fenn ci lan ci politique ak xeex li nga xam ne mooy notteel kon bu demee tey ba Ousmane Sonko réew mi choisiral ko seen bopp mu nekk homme politique boo xam ne amul fukki dërëm bu mu jox kenn. amul cent franc bu mu jox kenn amul junni wala ñaar junni lu dul askan bi ñoo ko bëggal seen bopp di ko nattal di ko cotiser ñee di joxe junni surtout waa bi kenn amul seen nee naa la. Ousmane Sonko dafa nekk nit koo xam ne yàlla moo ko taamul boppam te gis ngeen ko nu mu taxawee ak nañ ko sampee ak ni mu taxawee tey ba jël réew mi jox ko ki nga xam ne moo di jomaay joxoñ ki nga xam ne mooy Bassirou Jomaay fee ñu jël réew mi ànd di liggéey léegi kon moom Ousmane Sonko ban sawkatu la la war a tontu ban mankan kunkan la war a tontu. gisuma ko de. ban sawkatu la ban opposant bu bu am cas moo fi ne lu dul ñoo xam ne tey nit ñi dóoruñu fay ñu xeex kenn nawloo leen ma ne opposant bu bees dama ko bëgg ci ay xale yoo xam ne dañuy focus. damaa bëgg ni Ousmane Sonko sampee na ndam yaakaar boppam ñëw taxaw ne damay opposé xool li fi nekk ne gënaluma na am ay opposant yu bees. te yoruma 100 francs dégg nga yoruma 100 francs lii moo ma ñor kon Ousmane Sonko lim ñu tegoo lim ñu digoon wàcc ko benn yoon mi ngi ci mm-hmm. bon chemin. tubaarkàlla macha allah te yaakaar naa bu demee ba nga xam ne dafa wàcc yoon bi wàcc raay bi yaakaar naa dañ koy jubbanti ba mu neex ñëw teg ko fi. Mm-hmm. waaye Ousmane Sonko fa nga tegoon moom ba tey ma nga fa. Mm-hmm. bañ ko ba amuñu ay amuñu lu ñu war a wax ku ci mel ne président que euh, nduuleen mais seen dof ya moom bu Ousmane génnee wala Jomaay génn mu toog di wax xam nga ne bu demee ba opposant di taxaw di focus ci ay saak nga war a xam ne na perte pertolomaan nga nga xam ne opposant bu demee ba wax ci ay saak naan saagu ba jabar diw tax Macky te jabaru Macky Sall nekk di taq ay jamaa di takk ay markisaay di takk ay mbubb un million. léegi lu ñu ay bongo ci biir palais bi. di def ay bongo maan di def ay yëf rabam di bañ. birama birama dama birama hee. waaye <laughs> mi ngi noonu léegi nag kii génn jabaram tubaarkàlla macha allah woote. ko élégance bu ne mu jabaram génn tubaarkaal def saag bu bees ñu di ko calculer waaye noonu lañ yoree réew hmm. lu tax waxuñu ne jomaay costume bi mu sol wala Sonko lu mu def lan ñu focus si xam na mooy jabaram waaye hmm. jabaram njuuy na leen parce que lañ doon xaar ci moom dañoo ne koo xam ne dafa bëgg bongo deuxième dame bi nangama nangam waaye mhm. boppa tey bi ngi ne patak organisé dégguñu ko ci dara ma nga toog toog toogaayu euh, grand mère am toog toogaayu tubaarkàlla grand dame am toog toogaay boo xam ne tubaar tubaarkàlla macha allah géré borom këram génn nag tubaarkàlla def ensemble am bu ne muut mhm. def ay talon rouge yu ne muut laal saagam bu cher bu am maanaa léegi bu demee ba nga xam ne Sénégal gi opposant taxaw di wax ay ja ay ay ay saagu Euh, deuxième dame nga war a xam ne kon Sénégal amatoo la wax Sonko fatt na fépp tubaarkàlla macha allah jéggi jiitu na leen daaf sànni caravage ba daan leen jël buñ dootul dabu liggéey rek lañ woote eh, ak focus <laughs> nañ xaar le temps may ñëwaat ci yow Ngoné dinañ ci taxaw ba léegi